salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi leen sama yaay bu baax bala maa continuer waaw dama bu ngir yàlla ak jëmu suñ Babacar Si nga may ma rek nga génne ci ñoom ngir yàlla génnal ci ñoom génnal ci ñii ay ci ñii ngir yàlla ngir bi ñun bëgg nañ nga toog fii ba ngir yàlla ci ñoom góor jigéen ñi nga nekk la nit ñi ñëpp bëgg a génn ci ñoom génnal ci góor jigéen ñi waaw góor jigéen ñi baaxuñu te réew mi kenn mënu leen fee jële ndegem borom réew mi moo leen fi mënta jële mënu leen a xeex bu leen jéem a xeex génnal ci ñoom génn ci ba wet nga seet beneen yoon nga dellu ca la nga nekkoon sax boo ko mënta bàyyi moo gën te nga génn ci ñoom kuy sa mbokk rek dem wallaay yàlla xam na ne te mu ngi jooy mu lay jooyal. waaw yaay maa ngi lay ziar man de yaay jaaxal nga ma man de damaa xamul looy jooy ba te ku rafle wala ku manqué xaalis wala ku ay nelawam doyul yaay loo ma ñaan defal naa la ko du xaalis du kër gu rafet du passeport du dara yow am nga lépp loo soxla rek maa ngi ci loo bëgg maa ngi ci loo ma mas ñaan nag ci àdduna bi defal naa la ko. mais góor jigéen yi maa leen engagé li tax ma leen ak fit bi ma am du du du yow yaa ko def ci man sama papa la yaa ngi dégg sama papa xaw ma ko mais dégg naa ay jalooreem aw ma lu may ragal xeex góor jigéen ci jaamu yàlla la bokk sama bakkan bi yaay bugguma mu des si bugguma ci ñu retiré sama passeport indi wan ma Sénégal déggoo ma de du ma bàyyi man duma ragal ñaan ma lu ne mais foofu moom génn fa. dégg ngeen lii man du ma retiré wu Bambey dama ne tey waxoon nga di nga dugal vidéo bu may gàttee góor borom rasay boo dugalul ndeyam falaa lay fekk ah xëcc sa ndey bambaay xam nga nan nga war a def woo sa yaay ba mu ñëw nga katt ndeyam mbej ne ko waa yaay lan nga liggéey sama kër baay ba jur ma man ak lëf ni mu neexee may juutu di joxe tuun di puusi day da nga war a katt sa ndey mbéj sa yaay bi la jur dama ne la pambaay man ngay waxal de xaw moo lay def ak sa moustache yi di mel ne mbob bu duus benn ban wan bàyyi woon ma toj seen cott ndey yéen ñëpp xam nga om so so damaa daqaar ndeyam ba woowi ji la pour di wut wàllu sa waay man sax ay dem ay plainte di jaabante loolu day yàggal parce que mënu leen ma dara mënulu leen dara ci réew mi ngeen dëkk ma dëkk ci réew mi am ngeen xaalis ma am xaalis xam nga lan la dajale leen seen association ma def sama sama association mafia masia ñu ne fii la ñuy dajee ñu dajee ma xolli seen data nday yéen ñëpp puus day lañ koy tere Sénégal sama yaay mooy wax te gis nga sama yaay ni ma ko tontoo du ma reculer de ñëw leen ban one by one mat arrosé seen data nday yéen ñëpp foofu laa yem man du ma ragal du ma Adama sekk nga tudd dinaa sekk sekkeen sa diggu data nday waa kaa dafa war a daaf ni hmm. kaa bi dafa war a daaf ni yow aadamoo nga foog ne nit ñi dañ laa ragal ba lu la neex nga def naan maa yor Sénégal man la ñëpp ku ma woo man boos dootoo ñeme man aadamoo kenn du ma saaga man Pape Mbaye Sangoné Birame Jigéen Mbaaya star bu mag bi vedette bi grande dame bi VIP bi jeeg bi sa dajaw nday maa lay bàkk damay toj sa lëfal nday baax na c'est très bien ça damay toj sa lëfal nday man Pape man la Mbaaya aadamoo sa càmpanday xaaral ma taal caméra bi nit ñi gis ñi man na damay ubbi sa lëfal nday sama oto bi daa lëndëm maa ngi nii. koy wa koy waxal li koy waxal li jimba doon dem dama doon dem salle d'entraînement maa ma nii seen baaraam man Pa Mbaye ne classe bi Pa euh, la ñuy katt ndayam ni maa ngi nii man Mbaye Adamo man ngay bakk di saaga gambien nday doyatul damay saaga ma gambien yaay bu tëgg sa baaraam ba pare jël leen ñu kaakaa bi teg leen ba mu ñëw na kaa bi dafa féroce. dinaa la defal Amzo Amzo. yow ah. soixante épisode ngay def ak cent épisode dinaa ko kaawal trois cent cinquante épisode déedéet man dama ko de xoola man dama de ko dinaa la kaa ba trente ba thirty first janvier ba trente et un janvier ba ba trente et un décembre ba at bi di jeex. octobre ba décembre dinaa dugg ci data nday Adamo maa ngi nii di dem Turquie. New York laa jëm gannaaw suba ca ca building ya laay taxaw di toj lëfal nday aadamoo ci diggu New York pare semaine bi ci topp maa nga jëm Turquie Istanbul laay taxaw jël Istanbul di ko iski lëfal nday aadamoo pare le treize maa nga Dubaay ma wàcc biir Dubaay toj lëfal ndeyu aadamoo very good kaa jeex na xale jigéen ñi noppaliku ngeen aadamoo dootul mhm. amati seen temps bay génn seen data